gërëm leen di gërëm mbooloo mi fi teew di jiital si nuyoo bi sama sëriñ sëriñ Moustapha Sy bu Seydi Nour di nuyu suma xarit suma sëriñ Alaaji di nuyu waa kër Mame Khalifa Niass yu si géew bi waa kër Mawlana Cheikh al Islam ñu ngi ci géew bi di nuyu waa kër Cheikh Abdou Hamid bu Cheikh El Hadji Malick Sy ñu ngi ci géew bi di nuyu waa kër Serigne Bassirou Mbacké ñu ngi ci géew bi waaye di nuyu tout le mouvement MJK DFL teew yëpp ñëpp sama xol bi gis na leen waaye comme te dama ci jaawab yàlla fàtte def maa daaw comme te dama ci jaawab yàlla mën naa juum kon képp ko xam ne teew ma fi man mënuma man mën gis yàlla mi nga xam ne moo am mi nga xam ne moo mënta am te du jeexal maa ngi koy ñaan ci barke yonent bi yàlla na yàlla fay képp ku fi teew sama xol bi gis na la sama am lu la tudd sama xol bi gis na la yàlla na yàlla fay ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nag sama baay sama xarit sama ak imam Tati mi nga xam ne lu mu gàtt gàtt dinaa la lim ak a ñàkk ki ñaan lim def nii je pense que dañ cee jiitu imam yi rek wala dañ cee jiitu nit ñi rek waaye ñëpp ko war a def ci àdduna ndax ñëw taxaw fii téeméer jéem fa ba saar ci lu baax yow yaa gën a néew la ci defal kon boog ñëpp ko waaye Thiel Farba ci xolu ñëpp la ne yal na la yàlla fay di gërëm aussi délégation yu fi teew yëpp waa MET les étudiants étudiants yi nga xam ne ñu ngi jugee ba Dakar ku ne xam ne dund étudiant lu métti dund ticket lu métti ñu jël seen transport seen moyen bopp ñu accompagner Ousmane Naar derrière le ministère Farba Sarr ke gërëm naa ñëpp ku mu limul ngeen xam ne jaamu yàlla kese la damay fàtte damay juum waaye sama xol bi dee du leen fàtte mukk di gërëm ñoom boo ak ñoom Moustapha waa sama teer yu baax yooyu yàlla na yàlla fay di nuyu aussi ñi nga xam ne maa ngi ñaan yàlla yàlla nga ma xettali ma bokk ñoom yàlla yàlla nga ma dimbale ma bokk ko ñoom muy les handicapés te duñ handicapé sax ñu ngi nii toog lépp lu ma nar am te bokk ma ko yéen yàlla moo ko am yal na la yàlla fay di gërëm sama tambour major ñi nga xam ne ñoo ànd ak man ñoom nee na sekk di gërëm man a sàmb alem buub jalawaar ñi nga xam ne man la nekk yal na yàlla fay maa wóolu woon tout le mouvement MJK DFS maa wóolu woon toute la population kaolackoise pour waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ñetti anam ba ci ñeent ñoom ci lu lëmbe réew mooy lan suñu mentor suñu baay suñu xarit le ministre le plus accessible le ministre le plus généreux le ministre le plus spontané nit le natif de Kaolack monsieur le ministre Diène Farba Sarr bi nga xam ne après les élections ba ki nga xam ne muy président de la république bi xam ne moom la yàlla wàññi si nguuram jox ko muy nguur di président de tous les sénégalais forme gouvernement am boolewu ko ci mën na cee waxtaan ak dina waxtaan ak yéen ci diggante MJKDFS ñi nga xam xam ne ñu ngi doog a tudd def ñetti at kese nag lëmbe Kaolack liggéey fi def fi un travail mu am ñu neex ak ñu neexul waaye comme da neex na yàlla rek jërëjëf waaye dina waxtaan si population Kaolack ñu téye Ousmane Noël. di leen wax jërëjëf président Macky Sall ñun waa mouvement MJKDFS ñu ngi lay wax un grand merci un grand merci encore un grand merci monsieur le président de la république jooyu ñu defuñu kii de kër neexuñu waxuñu pour mais dañuy wax lu ñuy sentir lu nekk suñu parce que ku santul nit doo sant yàlla monsieur le ministre Diène Farba Sarr dafa ànd ak yow ànd bu rafet depuis 1998 ànd ak yow waaye ba mu ànd ak na ànd ak naa yow ànd ngor yow tamit nga ànd ak moom ànd ngor ku ne xam ne réeréewu leen te doole monsieur réeréew ba abadan nga jox ko occasion mu servir réewam ñaata personne ñoo am diplôme wala jàng comme Diène Farba Sarr bëgg servir seen réew te mënuñu ko ñaata nit ñoo bëggoon doon un ministre de la république te doonuñu ko ñaata nit ñoo bëggoon tey wax dëgg yàlla nekk ci wetu président de république di ko liggéeyal te amuñu ko te donc yàlla bu dogalee Diène Farba Sarr président Macky Sall jox ko pendant six ans si li ngeen xam yéen muy servir Sénégal di def un travail si Sénégal kon jërëjëf président de grand merci le mouvement MJK vous dit un grand merci parce que dañoo la gërëm parce que bu jàkkee président de la république defuloo ministre de la république est-ce que dina ko mën merci président de la république un grand merci. di leen wax tamit monsieur le président dama jéggi keroog sa discours nga ne ñi jooytu si réseaux sociaux yi maanaam man sax dama leen xeet waaye kooku de xam naa ne président ku muy indil kaamil alxuraan ma wax ne ba muy wax xalaatul jéem Farba Sarr li may wax waxuma ko pour sa sama mbokk journaliste yi dagg ko yóbbu ko mais dama koy wax rek pour wane ngoree gum gore pour wane Diène Farba Sarr bëgg mu bëgg président de la république pour wane Diène Farba Sarr sa loyauté pour wane engagement am am ci président de la république Macky Sall dama ne bëgg wax aussi kan mooy Diène Farba Sarr depuis 98 la ak ay teraangam parti APR mën na ko ci am borom jël fa ba Sarr moo créé parti bi féeti diaspora jugee foofu jël fa ba président de la république ba ko Abdoulaye solal bu nekkee primature ci li ngeen douze chantier bu am fii Ndakaaru les grands chantiers yëpp Macky Sall jël Farba Sall ko jël koon jël Farba Sall ko def moo réalisé yëpp chantier yëpp kon kooku xaajum réeroo ku foog ne réeroo nag jël Farba Sall yow yaa réeroo waaye yow réeroo di wax ne di wax ne ba nekkee primature le président de la République oo na ko na ko jéem moo gën a baax fii nga nekk am na indilité am na lépp mun ko président man soxluwuma kuddu sa kanam laay toog na Ablaye ndax yu ko kon am na président la possibilité jël fa ba Sarr banque mondiale ko propose ko 12 millions mu ne ko man Sénégal laay si kanamu Macky Sall waaw comme propose 12 millions wala jaaxal kon nga jaaxal ko Sénégal moo ko ñor Macky Sall moo ko mu ñëw. nekk DCM e. dem ministère de la santé dem DAGE barki dem passation service bi bu amoon ministère euh, ministère de l'urbanisme ku ne dégg na ministre bi lu wax le ministre Fofana ku ñàkk ki ñaan ministre bu baax ne ko ak ni nga jàngee doon intellectuel ak ni nga doonee un grand ministre ak ni nga doonee lu ne ci àdduna nga doon un directeur doon DAGE ministère de la santé président Macky Sall dem adduna bi pour ñu pour pour saafoonte askan pour jël réew mi le président Macky Sall dénkoon fote nga toog fa sans salaire di lekk cere ak waas ak meew sans dara kooku moom loyal lii bu koy wax waxuñ ko pour dara mais dañuy wax ngëmam parce que kat yàqkat yaa ngi yàq waxkat yaa ngi baax ñaa ngi baax waaye nag ñu ma ne ñu wax ne Diène Farba Sarr wax loolu kenn il est dans son coin di gën a sant yàlla suñu borom Diène Farba Sarr jëfu gën a jëf yu ñaaw tey jii la gën a bëgg président Macky Sall tey jii la koy gën a accompagner parce que Diène Farba Sarr ak Macky Sall du affaire poste ministériel c'est son frère c'est son frère xool bi xool bi boo ko xottee président Macky Sall moo ci nekk. monsieur le président de la république dégg naa si jotul aussi nga ne des fois match football sax bu amee dinañ génne grand joueur yi ñu noppalu waaye xamal ne grand joueur bi nga génne tey fii ci Kaolack mooy Messi mooy Cristiano Ronaldo génne nga Messi génne nga Cristiano le président keroog match bi ñu football fii toog nii bu toog te nga génne Messi nga génne Cristiano Ronaldo dina doy waar dina doy waar waaye nag yàllaay fal waxoon naa leen ko ku dégg discours Ousmane Noël waxoon naa leen yàllaay fal nañ liggéey te bàyyi affaire ci loxo yàlla lu yàlla sotul ci ñun rek ñu def ko li ngeen di mën yëpp def ngeen ko. et élection référendum foog ngeen président de la république élection bu mu sa am foog ngeen président de la république lu ne war yëpp def nañ ko yéen a ngi liggéey yéen a si askan bi yéen a ngi doxantu fu ne di proximité pendant trois ans ba tey président de la république taux bi ko Kaolack fole mosu koo am ci àdduna tey loolu bu ko amee c'est à cause de vous c'est vous MJKTBS billahi lazi la ilaha illa huwa yéen yéen a fal président de la République Macky Sall waaye du ñu xati du ñu daw du ñu sol toujours ñu ngi si ginnaaw Diène Farba Sarr Ousmane Lew xamul kenn ci ginnaaw ñu dul ginnaaw Diène Farba Sarr Diène Farba Sarr la ñu am Diène Farba Sarr la ñu xam Diène Farba Sarr mu leer ci nopp yi ne MJKDFS ku yaakaar ne daanu na yow yaa daanu adduna adduna nag adduna dafa métti bëgg a tekki naka ma ñii dañoo soxor ñii dañoo iñaan ñii dañ lay xaram ñii di la fërintu waaye nag tawakkatu alallahi wa bil akhir wa wa taballa nañ laqatu ci ginnaaw yàlla mouvement bi mouvement yàlla la Ibrahima Niass naxuñu ne dama Ousmane ne bakki Cheikh suba ngoon bu dëgg bëccëg pendant trois ans di proximité di daw di di joxe ay financement musuñu lekk alalu nguur di jël suñu coordination di ko participer pour sa pour sa réaction ak lii nii te ñii ñoo la ñoo la faral ah kon ñu ngi lay ñaanal yàlla sa cinq ans nga am yàlla mel ni ndox ñu ngi la ci ñaanal yàlla sa projet yi nga bëgg a ko yàlla yeggali ñu ngi lay ñaanal yàlla. lépp loo xam ne bëgg nga ko Sénégal monsieur le président de la république yàlla yegg ci daraja Seydina Mohamed di la gën a dénkaat encore suñu mentor di la gën a dénkaat encore suñu mentor monsieur le ministre Diène Farba Sarr mi nga xam ne mosoo réer ak moom te ñëpp si xam dara di wax ne keroog maa ngi dégg sa programme investiture bi bi ngay wax di wax di wax ci ci wàllu désencombrement bi di wax ne loolu sa programme le président ne si kaw la jiitu. suñu région de Kaolack c'est notre fierté monsieur président Kaolack toujours c'est la région la plus sale may wax ne li ma wax jarul sax ñu koy tàggee rek di ko dugal nañ bi Kaolack mësta changé te Kaolack jox na la lépp lu mu amoon ñu lay ñaan monsieur le président ndéem bu dee yaa ngi ci Kaolack mosoo changé ci àdduna sant na Kaolack lëndëm na Kaolack la jeunesse nekkul monsieur le président ñu ngi lay ñaan nga sauver Kaolack c'est la région boo xam ne c'est notre fierté c'est la région boo xam ne moom la ñu am suñu yaay fi la juddoo suñu baay fi la juddoo kenn mënuñu ñoo tere ba nga xeexal Kaolack nangaan dina ko xeexal bay sàngoo suuf ndax def Kaolack rek la ñu am wax dëgg yàlla ah, di gërëm waa Kaolack nangaan Kaolack gis naa ni ngeen ma jàppee gis naa ni ngeen jàppee seen doom Kaolack gis naa ni ngeen bëggee Ousmane Noël Dieng fu ma dem yéen a ngi may xulool yéen a ngi may xeexal waaye maa ngi xamal ne Diène Farba Sarr lépp lu ma mën moom la Ousmane Noël mënul tabax tekka Ousmane Noël mënul tabax armeer lu ma mën c' est c' est à cause du Diène Farba Sarr te Diène Farba lu mu mën Macky Sall la et ma loolu wax leen ne bu leen déggu tool bu leen déggu